jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias mbokk yi teewlu xibaaru marax yi ponk ci gën a fës Abdoulaye Mbaye waykat ba génn na àdduna xalam demoon na bay neex bu mu ko dog Abdoulaye Mbaye tollu woon ci tëggaatay morso morso yooyee mu jot woy bokk na ci fans yi bu ñu sukkandikoo ci xibaar euh, ca studio ba mu nekkoon fala daanu moom Abdoulaye mbay euh, ba mujj ñàkk bakkanam dinañ ci euh, dellusiwaat meneen ponk ci biir xibaar yi muy juróom-ñaar ñu bokk tuumaal ak mandat de dépôt ku leen ko def nag di euh, doyen des juges d'instruction maire bu euh, Médina nag moom euh, xamaguñu lenn ca moom bu ñu sukkandikoo ci xibaar ci jamono ji ñuy wax ak yéen Moussa Faye conseiller politique bu Khalifa Sall moom ma ngay naqarlu lu ni mel maître Bamba Cissé moom it di naqarlu li nga xamante ni nii jëfee wuñu ko muy ay tegtal yu tukkee ci UEMOA muy nag képp koo xamante ni dañu la jàpp ci waxtu yu njëkk yi avocat bi lay layal daf laa war a taxawu loolee na dox Clédorli lu aju sax si wàllu woowee mi ngi sàkku nag ci takk der yi nga xamante ni nii ñoom ñoo nekk ci commissariat central ba nañu leen dàq ndax takk der yooyee ñoom ñoo ko teree eh, gis seen eh, client beneen ponk ci biir xibaar yi muy procès en appel bu seen Habré nekkoon fi njiitu réewum Tchad eh, procès en appel bi nag tey jii la daal di door ci suba si défense ba nag maanaam ñi koy layal ñoom nee nañu àq ak yellefu seenu client la ñu jalgati partie civile baña ca fare moom ña ngay tàccu mbokk yi ponk yaa ngi ni ci yaatal gi léegi léegi yaram demoon na bay neex euh, buum nga dog Ablaye Mbaye euh, génn na àdduna nit ki euh, sànq Ablaye Mbaye nag toll woon ci tëggaat ay morsoom di li nga xamante ni jot na ko way morso yooyu nag bokk na ci fans yi bu ñu sukkandiku ci xibaar Ablaye Mbaye ca studio ba mu nekkoon fa la daal di daanu ba ñàkk ca bakkanam dinañ ci euh, dellusiwaat ngir euh, gën cee am lu leer ak anam yi nga xamante ni noonee la génne àdduna moom Ablaye Mbaye ni ngeen ko gisee nii ci nataal yi waykat ba ñëpp xamoon ko ràññee ko soppoon ko ci senegal génn na àdduna ni ki euh, sànq télévision Futur Média ma ngay naqarlu lu ni mel bokk ko ki mbokkam ñoo ko gisandoo muy Ablaye Mbaye waykat ba niñ ko waxee rek génn na àdduna ni ki euh, sànq ñu daal di wax euh, ci juróom-ñaar yu ñu bokk tuumaal ak euh, Bamba faal juróom-ñaar ñooñee nag nee nañ ñi ngi sous mandat de dépôt doyen des juges d'instruction Samba Sall moo leen yóbbu sous mandat de dépôt lu jëm nag ci maire bu Médina di Bamba Fall kenn xamagul ci moom dara ci jamono ji ñuy waxee ak yéen dinañ ci dellusiwaat ci mbir moomee ci la des it fële ca palais de ji fa maam Birame Diouf ko waxee Bamba Fall euh, ñi nga xamante ni dañu jàpp ni ñi ngi sous mandat de dépôt seen toll ci juróom-ñaar euh, di ay ndaw yu parti socialiste Bamba Fall nag xamaguñu ci moom lu bari dañ fay fekk ji maam Birame Diouf maam Birame nuyu naa la. maam biram fu ñu toll ci loolee ak euh, li ñuy wax ndax loo mën a firndeel la foofu muy juróom-ñaar yoo xamante ne nii bokk nañu leen tuumal ak Bamba Fall te ñu ne jamono ji sous mandat de dépôt. waaw euh, li nga wax noonu sànq soxna ki ne xibaar la gu ñu mun a jàpp gum ci yeneen xibaar yoo xam ne sax fii ci tribunal euh, Roussofi ndaxte xam nga ni ñii ba léegi ñu fii ci euh, tribunal bi ci kaas bi di xaar ndax ñu ci bëri dañoo amagul lu leer ci lu waral ba léegi sax ngeen ñi jugewuñu fii ngeen ñi booy laaj rek xamuñu donte Khalifa Sall moom mu ngi fi taxaw ba léegi xam naa loolu moo tax ñu bëri taxaw fii kon xibaar bi ni ko waxee sànq ñun muy xibaar gu ñu fort ci yenn ci ay avocat yu fi nekk ñu xamul ni kon ne kii di Bamba paal ak kii di Bira Kandiaye ñoom ñooy ña nga xam ni ñoo fi desagum yeneen juróom ñaari ñu placé su mandat de dépôt ñooñu kon euh, jàppal ni euh, ca prison Rebeuss la euh, fanaan waaye gëneen xibaar bu am ba tey ñu taxaw fii di xaar mooy que ni lu mhm. jëm ci charge yi nga xam ni dañ kaa teg ci seen kaw maanaam lañ leen di tuumaal lu jëm ci Euh, jéem a faat bakkan ak it euh, jéem a yee fitna booloo it pour def ko ak it lépp lu jëm ci yàq mbirum nit loolu ay daan la kon daan yooyu bu ñu jàppee ne li yóbbu ci prison dañ leen atti ci daan yooyu ba moytul kon euh, bu ñu jàppee ñoo def kon dina métti trop kon disqualification des faits beneen xibaar gu ñu for la muy dañuy jéem a xool naka lañuy ñuy xoolaatee faits yi maanaam dañ leen nar a téye ci ay jëf yoo xam ni ko day jàpp moom la ñu def ñu xoolaat ko bu baax muy luy war a mën a wàññeeku. Bamba Fall kon ba léegi ñun dañoo mën a jàpp ci xibaar gu ñu formé mu ngi fii jugee gu mhm. fi mhm. yenn ci nit ñi jóge ca Médina ak ñeneen ñu bokk ci parti socialiste ku ci mel ni kon maire bu euh, Dakar Khalifa Sall mu ko sànq mu ngi fii kon ñëpp daal dañoo bëgg fu mu lu leer seen bopp moo waral ñuy xaar kon xam naa daal lu ci munti am euh, dinañ ci ñëwaat fàttali ci euh, di ko jaajëfal lum ca mën a doon ndax ñu ngi sous mandat de dépôt waaw am déet Moussa Faye moom moo yore euh, wàllu maanaam moom mooy xelal xalifa Sall ci wàllu politique moom mi ngi naqarlu lu ni mel bu baax a baax nee na nag daañu def seen kéemtalaay kàttan ba ñoo ñooñee nga xamante ni ñu ngi sous mandat de dépôt bu dee lu am la ñu bàyyi leen na mu gën a gaawee Moussa fey ñu teewlu ko ci micro Alassane Ba. waa tey bés bu métti la ci parti socialiste senegal bés bu métti la ci démocratie senegal man de maa ngi doon gis tey parti politique nga jël sa ay doom yóbbu leen kaso ci ay coow yu ñàkk fayda lii ñaaw na rafetul jekkul man li ma jaaxal mooy tey dama xamul ñi ko def tey ñoom li ñu mën tuddee nelaw seen kaw lal bàyyi ay doomu jàmbur ay doomu parti socialiste tëdd fii ci kaso bi loolu jàkkul rafetul bu baax dama ne combat bi ñaari ñaar la au plan judiciaire suñu avocat yi lépp lu ci wax dinañ ko def bu neex neexee yàlla ñun aussi ci politique bi aussi ñun ak ñoom xamante nañ dañuy politique lépp lu ñu def lépp lu ñu mun def pour génnee ñii dinañ ko def bu neexee yàlla. lu jiitu loolu niñ ko xamee ñetti yoon am nañu ko retour de parquet muy Bamba Fall ak ñamu àndal lu ni mel nag maître Bamba Cissé mi ngi koy naqarlu leneen la mu naqarlu tamit mooy li ñu jëfewul tegtal bi tukkee ci UEMOA muy képp koo xamante ne dañu laa jàpp ci waxtu yu njëkk yi euh, sa avocat mën laa taxaw loole nag la bëgg ñu xoolaat ko maître Bamba Cissé ñu teewlu ko ak Chérif Dia. déjà ci réforme code de procédure pénale bu ñu la interpeller rek yow da am nga droit ne sama avocat foog ma gis ko su boobaa policier bi du ci mën dara am nga euh, un temps boo xamante ne dañ la koy permettre nga gis sa avocat mais le cas Ciré Clédor Ly c'est un cas particulier parce que Ciré dafa dem di gis client boo xamante ni nekkul ci garde à vue nekkul ci détention ku nekkul ci garde à vue nekkul ci détention kenn waru ko téye parce que foofu day nekk un flottement boo xamante ni dañ koy qualifier de détention arbitraire jaaduwul parce que amul benn texte bu ko organisé en droit positif sénégalais réforme bi passé bu novembre 2016 bi dañ ko ci fàtte intégré donc dañ ko ci war a intégré bés buñ ko defee bu boobaa c'est légal buñ ko defu rek retour parquet c'est une détention arbitraire maître Ciré Clédor lii àdduna ci lu mel noone moom it euh, mi ngi wax ne dina daal di kalaame euh, chambre d'accusation ngir nag li ñu ko gàntal te muy bëggoon a gis ay client am loolee nag naqarul na ko bu baax a baax moom maître Ciré Clédor Ly ba tax nag nee na kalaame boobee daal lu mu ci jublu mooy takk der yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fële ca commissariat central euh, te gàntaloon ko lu ni mel ñu daal leen di dàq ci métier bi loole mooy gis-gisam di maître Ciré Clédor Ly ñu daal di wax euh, ci mbir moome ba tey muy ñi ànd ak euh, Bamba Fall ñoom nag niñ ko waxee rek euh, tey ci suba palais de justice bari woon nañ fa lool muy nag ay jege ñaaleem ñu ñëwoon rek ngir daal di koy jàppale ñi ngi takkoon sax ay morso yu xonk di naqarlu ngir nag ñu bàyyi maire bu Médina dinañ ci dellusiwaat bu dee élément bi Euh, sotteegul ñu daal di àddu ci procès bu Hissène Habré nekkoon fi njiitu réew euh, bu càdd lu ci yees nag mooy dañu ko wooluwaat moom Hissène Habré muy procès en bi tey ci suba la daal di dox défense ba nag ñi muy ñi koy layal ñoom nee nañ dañoo jalkati ak ak yelleefu seenu client waa parti civile ba nag ñoom ña ngay euh, tàccu ndax kontaan nañu ci lu ni mel dañ ci ànd ak Mamadou Fall. procès bu bëri werante défense bi gis seen requête ba ñu dugaloon ñu dàq ko juge yeggali kon procès bi procès en appel boo xam te ni door na ni ki tey jii ci suba défense bi moom rek amoon kàddu waaye moom lu mu jàpp moo di dañoo violer lii di droit Hissène Habré ñun toog nañ ñaari weer après ñu soog ñoo jox jugement bi alors que quinze jours lañ amoon pour def appel bi loolu mooy ñun ñoom dañoo def tout pour fermer ñu porte boobu. bu ñu mën a def appel wala bu ñu demee ba di ko def tamit duñ ko mën a def ci benn anam boo xam ne bi dëppoo ak yoon pour mën a respecter ki nga xam ne kii moom lañ doon acté loolu violation droit wu Hissène Habré la. violé lii di droit Hissène Habré jàppale waa parti civile ñoom ñu jàpp nii ex président tchadien bi lu mu mérité rek la am. avocat défense bi ñoom ñoo def appel ci culpabilité yi defoon nañ ne tey dinañu indil ay moyens yoo xam ne war na mun a tax. atte bu njëkk bi buñ ko dindiwul totalement aussi ñu xaw ko laalaat mais li ñu dégg tey daf ñu def jaaxal sax parce que mënoo def appel ñëw di wax loo xam ne méngawul ak lañu àtte woon parce que boo ne dañoo daan Hissène Habré ci kaw ay wax kese te ñi ko fekke woon ñëpp gis nañ ne juge yi nga xam ne ñoo def information bi dañoo dem ba N'Djamena fuñ ne am na fausse commune ñu daal di ko dindiwaat xool ñaata nit lañ fa denc seet ñooñu aussi expertise de datation ban jamono lañ leen faat ndax méngoo na période bi nga xam ne Hissène-Habré moo doon gouverner aussi buñ gisee ñu ne hissène abre dafa def euh, exécuté ñu ne ñoom duñ yem ci loolu dañ def expertise graphologique pour xool ndax lii bindu Hissène-Habré la loolu yëpp boole kook témoignage yi nag loolu boo ko defee vraiment war nañu tey daal di euh, njukkal juge yi ndax dañu yëkkati Afrique tey. procès bi daañu ko wéyal talaate gi kon partie civile moom rek kon mooy am kàddu ci kanamu juge bu chambre criminelle africaine ci fàttali rek Hissène-Habré ñu ngi ko daanoon ngiru dundam fanweeri fan ci weeru mai ci atum mu nekk nag décision boo xamante ni avocat yu ñu commis d'office dañ koo attaqué. war na mun a tax atte bu njëkk bi. ñu des ca palais de justice ak la fa am tey ci euh, suba muy jege ñaaley Bamba Fall ya fa ñëwoon ngir nag euh, gunge seen upp ñooñ jàppale ko tey sàkku ci euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo ngànk wàllu yoon ñu daal di koy bàyyi morso yu xonk nag la ñu takkoon maire bi di Pala Samb moom ma ngay naqar lu doxalinu magi parti socialiste Alassane Ba Thierno Laurent Mendy ab mbooloo bu seen yaram tàng lool bi nga xamante ni kii di Bamba Fall ak ñi mu àndal andi nañ leen ci cave bu bu Ndakaaru fexe faat bakkan mu di benn ci li ñu tuumal ñoom Bamba Fall ak ñi mu àndal mu doon lu metti loolu maire bi di Pala Samb. li nga xam ne xew na fii tey fii si tribunal dafa ñaaw si daru parti socialiste. je pense que tentative de liquidation la et ça ne passera parce que nit ki nag biir partie bi nag si lañu ñu juddoo yaroo ci màggee ci. maire socialiste bi di ñaaw lu itam doxalinu ñi ñu duppee sage yu bokk ci partie socialiste. tey problème bii lu mu metti metti metti metti waroon na mun a am solution si biir parti bi parce que parti bi am na commission de discipline parti bi am na commission comité de sage et je pense que bu ñu waxee comité de sage am na lu muy jariñ mooy bu ay xale juumee mag ñi dajaloo teg leen si raay loolu la ñuy doyee sage tey jii sage yi waruñu woon mun a seetaan lii di ñëw fii waroon nañu mun a dajale ñi nga xam ne ñoo def même bu dente ne ñoo def ñu sanctionné leen politiquement sage yu parti bi ñoo fayir seen seen mission tey bu ñu defoon tey li ñu waroon def coow li du yegg si fii. Khalifa Sall botte secrète bu maître Abdoulaye Wade tontu ñi fare ci maire bu Ndakaaru. c'est parce que xëy na loolu la ñu bëgg utiliser mais ni mu ko waxee moo dina rek dafa wax ne moom bi mu nekkee ak Wade daan nañu am ay jafe-jafe mais saa yu jafe-jafe amee président Abdoulaye Wade daan na ko woo. ñu toog waxtaan trouver terrain daandaan mu bàyyi ko mu liggéey. tey jii bu dakaar mel ni mu mel ci liggéeyu xalifa waa da jàppale na ko ci tamit parce que bàyyi na ko mu liggéey mais quant à dire ay bot secrètes wala kuy ku ku ku wàdd ku wàdd ngemb wax ko daanu ko sànni daal vraiment góoma ko. gannaaw xibaar yi ñeel yoon ñu wax ci wàllu njàng mekk njàngale mi ci Sénégal fële ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru SAES di kuréel googu ëmb jàngalekat yi ci daara yi kawe yi ñoom daal di nañu door ab grève grève boobee nag gise nañu ko ñaari fànd ñenn ñi nag ñoom dañoo jàpp rek ni lu jaadu la ñi si des jàpp ni dafay gàllankoor njàng mi ay sëtu pay Modou Diop. doctorant yi élèves première ak quatrième année yi toog di waxtaan. ñenn si ñoom nag ñi ngi soutenir seen ay professeurs ñi nga xamante ne ñoo dem grève. li ñu ciy ñaawle rek mooy que ni xëy na état bi war na si man def ay engagement pour maanaam ñoom seen tawat ñu fexe ba saafara ko quoi parce que professeurs yi ñoo ak élèves yi ñoo ñoo étudiants yi ñoo ànd parce que ñoom lu leen métti ñun daf ñuy métti parce que ñoo ñu jox cours ñoom ñoo ñuy dimbali kon bu fekkente ni ñoom ñu si ay état bu metti nii kon. ñu étudiants yi ñu ne dañ si ànd. Arfan Sarr moom di ñaawlu doxalin gi bu baax. c'est une am na loo xamante ne ñu ngi koy perte. parce que xam-xam la boo xamante ne waroon nañ ko jàng te jànguñu ko kon loolu du loo xamante ne baax na ci dëkk vraiment. depuis ci suba ba léegi maa ngi fi def naa le tour de certains départements mais d' après bi ma gis gis naa ne ci ay salle de classe presque pratiquement amul professeur kon loolu day wane ne rek grève yi am na impact ci enseignement bi quoi. étudiant bi moom li muy xam xamle mooy ne ñoom rekk ñu nar a perte donte tey seen ay cours dispensé nañu ko. nañ cours de à midi. Euh, grève bi moom pour l'instant moom affecté guñ quoi waaw xamaguñ nag bi. ñun ñu ñoo si ñaax gisoon nga waa fac droit récemment dañoo def grève prolongée ba ñu dem si session unique te loolu chaque jour étudiants ñu si perdant état bi war jël de telle sorte que ñu wax engagé wu décision boo xam dañ koy jël. à part égale. benn fanu grève la waa SAES amal tey li ñuy ñaxtu mooy un mois d'arriéré de salaire bi nga xamante ne kenn fayu leen ko. ay sutu pay ñu di ko jaajëfal ngir lu ñoŋal njàng mi ci la ñu des ak li nga xamante ni tëral nañu ko di ab plateforme duppeeko groupe local de partenaires de l'éducation de la formation tey ci suba lañu tëral boobee plateforme plateforme bi nag li ko tax a jug rek moom mooy fexe ba ma euh, tolluwaayu njàng mi ci euh, Sénégal jëwriñ ji dénk wàllu njàng mi kawe mi euh, moom moo ci lëkkaloo ak jëwriñ ñi nga xamante ni dénk nañu ko wàllu formation professionnelle ba ci ministère de l'éducation nationale lu aju nag ci groupe boobee ko waxee tamit am nañu ci wàllu bu baax a baax sëriñ bay Thiam di jëriñ di dénk wàllu njàng meek njàngale mi ñu teewlu ko ak Aminata Mbaye Sow. ñu réew dafa daan am ay kuréelu waxtaan ak diisoo yu mu amoon ci mbirum jàng mi ñu am nañ ko fii au niveau national parce que lu dul benn lu dul ñaar fekk ngeen ay daje yu ñuy def fii revue paquet bi muy suñu programme sectoriel donc kuréel yooyu nga xam ne mooy pour waxtaan pour diisoo ci mbirum njàng mi te ñooñu ma lim ñëpp seq ko léegi dañ ko jox benn taxawaay bu muy am ñu tuddee ko groupe locale des partenaires de l'éducation boo xam ne bii lépp lu ñuy defati ci njàng mi ñoom danañ toog waxtaan ci balaa ñu koy yóbbu bitim réew balaa ñu koy yóbbu feneen et puis suñ koy liggéeyee tamit danañu toog di ko xayma ensemble liggéey bi fan la toll loolu muy lu am solo fekk ay weer ñu ngi ciy liggéey tey ji nag ñu ko doon taxawal ñàkk kaaraange gi ma ngay lëmbee fële ca kër euh, Mbay Fall ak agresseur yi nga xamante ni sonal nañu askan wa lool songate nañu leen waaye nag euh, bi yoon la ñu bëggoon amuñu ko ñoom agresseur yooyee imaam ya nag ñu ngay woote wallu di sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall ngir nag ñu sampal leen foofee ab poste de police wala bokk bu gendarmerie bu Cheikh euh, Bounama Diop moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ak Salif Sow parce que parce que stade kaay la fowukaay la te ku ko inauguré bu ñu ubbi ko luñ ca foog am sa te police du fowukaay ci dëkk bi ñu yeewu di Kër Mbaye Fall dëkk bu ñu bugg ëpp loxo la ci gàttal foofu fu ma fa yemoon rek mu baax maanaam dëkk la boo xam ne autant da ngay compter benn kër fii dox 300 mètres compter waat beneen kër nga dem ba population bi dépasse cent cinquante mille d' habitants ça pose problème sax agression chaque jour li may wax nii billahi wallahi tallahi dëgg la mooy démb maa romb ay xale yu jigéen yuy daw bokk seen saag nii bi ma bi ma rombee sama àdduna dafa tukki ay xale yu jigéen yuy daw di sooy seen bakkan ndax ay nit yu leen topp yor paaka yor jaasi kër mbay faal mi ngi ci loolu lañ dund est-ce que kenn ñeme naat euh, agressé biir pale ba comme ñu ñoo ko fal nag waaye président ñun dañ lay ñaan rek ci cër bii la yàlla jox nga xam sa doole ji yàlla moo la ko jox ñu ñaan la ci gannaaw bi ñu falee ñu ñaan la nga bàyyi xel Kër mbay Fall nga dimbali ñu ñu am suñu poste police la localité bi saye mi ngi fi place baa ngi fi forêt baa ngi fi gendarmerie am mën na fi nekk police mën na fi nekk ronde régulièrement Kër mbay Fall kenn nelawatul man maa la ko wax ah te am na stade bu ne fii à côté juste boo bu tasee chaque match bu am dëkk bi am nañ problème donc loolu imaam yi tey dañ mën a imaam daal il faut ñun imaam yi ñu daje wax mu doon wax ci kàddu imaam ya ca kër euh, Mbaye euh, Fall ñu wax euh, ci leneen ak ni ñu ko doon nemmeekoo jamono ji yëpp coow li bari woon na lool ci nataal yi nga xamante ne nag ñi ko doon gis ci mbedd mi muy nataalu chef de l'État Macky Sall coow li bari askan wi sax demoon ba di ci wax waaye dafa mel ni dellu nañ ca gannaaw ndax aju ci nataal yooyu tàmbali nañu ko dindi ba mu set wecc ci mbedd mi kii nag ab xam-xamam màcc na ci wàllu communication nee na lu ni mel nag ab message buñ ci jaarale la waaye message boobee mën naa jur euh, gàllankoor ndax mën naa nekk loo xamante ne xëy na euh, du ko tax a yàgg lool askan wi nag euh, kon fa ñu doon xaar la ñu doon bëgg a def xëy na mënees na cee dellu gannaaw ndax affiche yooyu ñu ngi koy dindi njiitu réew mi Macky Sall waxoon na ci ci njeexitalu bis bii may mën a njaay ay nataal yu bari te wuute boo xoolee ca wet ga seen fa njiitu réew mi Macky Sall li muy wax bokk na ci yokkute nañu dem àndandoo kóolute ba dem fu ñu jëm ay misaal yoo xam ni mi ngi koy def ci image yi image yi nag ndax askan wi gis nañ ko bu baax ana nuñ ko gisee. xanaa moom dëkk bi rek dëkk bi dafa mel ni moom affaire bu wër abadoo la moo fi am maanaam moom daal moom lañu ñu war teg si kaw rek ñuy des kenn du génn. jaadu na pour nit ki di liggéey wane li nga xam ne moom nga mébét comme ay projet lu rafet nga wax ko nit ñi pour nit ñi man ko xool bu baax bu ëllëgee nag bu ñu demee ba gisuñu loolu. ñu mën wax ni nag ah ñun kat lii yow yaa ñu ko waxoon. gis-gis yu wuute naam wante liñ ci jublu lenn rek la bu ñu sukkandikoo ci jàngalekat bi moom xam-xamam màcc ci nataal yi lii la ci wax. loolu mën na ñu ko si attaqué si loolu parce que dafa nekk loo xam ni si dafa nekk loo xam ne maanaam dafa nekk lu lu jaadu loo xam ne tamit moom war na mën a def. bu njëkk bu waxee par exemple temps de mooy waxtu waxtu jëf waxtu jëf dëgg dëgg la loolu lu baax la waaye dama ni loolu mën na ma nekk lu bees. si dégg si dégg-dégg voilà waaw te te nag affiche dañ si war a gis lu bees waaye li mu si teg nag bu waxee ni bàyyi leen ñun ñu ñu ñu ñu yóbbu leen loolu heureusement loolu moo sawee affiche bi fekkee sama gis-gis si affaire message. am ñu ne lii ëpp na ndax fu sa bët yam rek da nga ko fay seen ñi ci des ne dafa mel ni dafa am lu ñuy forcer monsieur jaram moom mel ni gisee wu ni. c'est kon am na yenn dëkk yoo xam ne effectivement kuy jiite dëkk bi da koy def mu nekk statut. pour que ñëpp xam ni kii kat am na fan ko teg boo xam ne moom xëy na weesu na xëy na place président waaye moom si li ma yaakaar wutul loolu si affiche yi dafa wut si affiche yi nii xëy na am na lu mu lu mu diggee woon xëy na ma ngi koy essayé kamt lay katam pour egg foofu. ay nataal ngir joxe xibaar am lu ñu fàttali wante it am na loo xam ni waruñu ci ëppal. parce que nit ki bu dee gis lu nekk loo xam ne bu dee gis mbir di gis mbir di gis mbir bu yàggee mën na foog ne nag kay bëgg forcé te bu fekkee pamp nag kay bëgg mën na commencé di fippu. mën nañ ni man li d'accord ma si loolu nag ku ne xam ne si publicité loolu danger la aussi. boo xoolee njiitu réew mën na mu taxawee la mu sol ak sax couleur yi nga xam ni ñu ngi koy nemmeeku ci nataal yi loolu lépp dafay wax bu ñu sukkandikoo ci borom xam-xam bi léegi nag la ca des mooy ndax nataal yi dinañu ëpp ñaari weer wala fa lay yem. ñu di ko jaajëfal a Ndiaye ñu dem ba diwaanu euh, Sédhiou responsable APR ya e, ku jëkk politique waa société civile ak conseil communal ba amal nañu ab ndaje ca euh, CEDEPS bu euh, Sédhiou ngir nag naqarlu la ñu dàkk Jean-Pierre Senghor nee nañ nag gox ba amul kenn koo xamante ni kon dañu koo tabb mën nañ jàpp ni benn nomination la woon foofee ca diwaanu Sédhiou saal ba ñu ne woon nag ña nga takkoon ay morso yu xonk ngir naqarlu Bakary Konté ndaje bi ñu ngi ko doon amal si CEDES bu Sédhiou ay brassards rouges yi ñu takk pour wane seen nakar waa Sédhiou daal di mer ba futt nit la boo xam ne dafa ci développement rek lay yëngu te ñun Sédhiou xam nañu amuñu fi dara dara dañu fi am amuñu usine amuñu fi dara loo xam ne suñu xale yi mën nañu fi euh, liggéey si kër gi nekk à côté de nous. président de la République Macky Sall vraiment Jean Pierre liggéey bu mu def moom Macky Sall moo ko gërëm si boppam moo moo ko ngën ci gërëm donc ñun amuñu dara fii produit bii la ñu am ñi ci ni ñi di ci béy di ci am xaalis di ci dundal si njaboot parce que benn projet nekku fi ñëpp xam nañu Sédhiou ci ndool la nekk. population yi di ne dafa am ay hommes politiques yi nekk fii si diwaanu Sédhiou ci APR ñi daal di ragal Jean Pierre Senghor ndax popularité bu mu am. ñooñu koy ñooñu koy ragal war nañoo xam ne ñoom waa Sédhiou lañu Jean Pierre ñoom lay dimbali Jean Pierre ñooñu politiciens yooyu lay dimbali bu ñu xamul ñu wax leen ko. amul wax leen ni que Jean Pierre lu muy def nii ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom la ñuy dimbali. ay marche journée ville morte ñu ngi ne dinañ ko amal fii ci diwaanu Sédhiou. dañu bëgg a def marche wane président de la république que ni ah, Sédhiou ngi ci biir Sénégal Sédhiou mi ngi ci biir senegal na gestu ñëw na fii gis na fi Sédhiou teeru nañ fi teral ko tëdd. yaa ngi dégg donc nañu dimbali porte morte dañ ko def parce que Sédhiou est mort comme mbuus la benn yoon moo fi nekk foofu la duggee foofu la ñuy président xam na ko def na tour bi xam na bu baax Sédhiou ay chef religieux dine dinañu rencontrer président Macky Sall koy expliquer lu xew fii ci Sédhiou ñi daal di leeral mbir mi ñu dem ba ndax géej wax ci tàggat yaram benn ponk euh, kepp muy nag la ñu fa nemmeeku aju ci nawetaan yi foofee gis nañu ni euh, ca football kepp lañu ko euh, yemale ndax bu ñu xoolee tey lépp loo xamante ne dafay soqali diwaan ba ci wàllu kom di ay projet dañu koy fàtte ba tax na acteur politique yi ñi ngi ñaax kon ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa yi ñu bañ a yem rek ci football waaye nañuy fexe ba sos ay projet yoo xamante ne nii dina jur wàllu koom foofee sax ñuy waajal coupe du maire bu Saint-Louis dañ ca ànd ak Ousseynou Diop ay waxtu moo tee ñu daal di tëj lu jëm ci wàllu nawetaan yi ci diwaaru Ndar Géej ak coupe du maire bi waaye nag mbir yi laata ñu koy tëj ñu ci bare ci ñi nga xamante ne ay kilifa lañ di yëngu jëm ci wàllu politique ñu ngay ñaan waaye tamit di dankaafu xale yi ñu daal di bàyyi xel ci lu jëm ci wàllu koom-koom bi ngir li nga xamante ni mooy tàggat yaram ñu mën ko boole ak liy soqali réew mi. ndax activité bu baax la d'abord si nit sa wérgu yaram mais dalay jàngal itamit lu bare si organisation. nawetaan warul yem kese ci wàllum football. warul football parce que nawetaan ñëpp gis nañ ni léegi juróom juróom juróom benn ba juróom ñetti weer lay duré fii ci Sénégal rawatina fii ci Ndar te muy nekk mouvement bi nga xam ni buñ ko dee dawal toujours day nekk ci wàllu nawet. ci quartier yi nga xamante ni demoon na fa di Léona Pikine Centre doon jongante final départemental bu Ndar bi président bu association action assistance entre aide solidarité ak développement daan nay ñaax ndaw ñi ñu bàyyi xel li nga xamante ni moo jëm ci wàllu koom bi. waaye nag taxawaay bi dafa war a am beneen façon bu mu am moo ne leen moo leen association yi war nañ fexe ba association bu nekk war a fexe nga am projet ba nga xamante ni véritablement yaa koy moomal sa bopp di si yëngatu mu jur koom-koom ba nga xamante ni jeunes yi nekk sa ASC bi ñoom bu nawetaan yi passé ñu am si lu ñu jàpp ci yeneen ci dëkk dëkkaan yi itam lu nu mel lañ fa nemeeku ca jamono moom maire bi la mu yëkkati ci ay kàddu bokk na ci tout tànk yi nañu bàyyi xel lu jëm ci wàllug mbay mi ak li nga xamante ni mooy napp gi ndaxte moom la mu gis mooy football bi naam baax na waaye nag xale yi dañ ci war a rax yeneen i mbir ngir suba ñu mën a am lu ñu jàpp man li ma bëggoon mooy ñu am beneen projet xam ni ci la ñuy liggéey ci la ñuy sonn ndax pro bi am na njëriñ lool mais dangay dem ay jamono dootoo nekk te boo jaaree ba jàll yow dem da ngay bokk te boo amul dara mun bokk mbay dafay dox càmm dafay dox mais mbay fi ma toll nii nit yaa ngi jóge bitim réew di ñëw jël suuf si waaw dama bëgg présidence kilifa yi yëngu jëm ci wàllu politique seeni bataaxal yi ñu yëkkati jëmale ko ci wàllu tout tànk yi ñu ngi ciy xaarandi dirigeant yi ngir ñu mën leen ci jàppale ñu ciy bare sax nee nañu loolee lu mën a nekk la ndaxte jamono jile Sénégal fi mu toll force rek ndaw ñi soobu ci wàllu mbay mi ak wàllu nappa gi ngir nag mu gën a mën a soqaliku ñi di ko jaajëfal euh, bu baax moom Seynou Diop fàttaliwaat lenn li fi gënoon fës mooy génnuk àdduna Ablaye Mbaye woykat ba faatu na nit ki euh, sànq Ablaye Mbaye ni ñu ko waxee rek toll woon euh, ci tëggaat ay morsom morso yooyu nag bokk na ci fansi yi moo yoon ko fi askan wi soppoon ko nee nañ nag ca studio ba mu ne woon fala daanoo moom Ablaye Mbaye ba wuy ji boromam dinañ ci dellusiwaat na mu gën a Euh, yaatu mbokk yi sant nañ leen gërëm leen yéen ñi farewoon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti euh, ci kanam tuuti Sara Cissé dina fi teew faram fàcce leen xibaar yi ci nasaraan jërë ngeen jëf